di del siwaat ci kartanal yàlla di sof ak yow li ma sosoon ak yow démb maa ngi woon ak yow ci li doon waral jëten yi muy xuduud yi tay nag damay ñëw ak yow li ñuy tuddee xeesal ak xatt bi ci lislaam wax ak jokku sa kawar gile ci mees ak lu dunul mees ak wat sa yéen yi de wàññi ba mu nekk as yoon ak lu ñuy tuddee njam ak yërele gi nga yërele sa bëñ yi le di ko xett yooyu yëpp ak cuub sa bopp bi le bi jaaw gane si na la nga ne yaa ngay ñuulal su ko defee timit nag ak li ñuy tuddee wat sa karaw gile moo xam da ngaa wat mu yem ak wat boo xam ne yemut ñenn ñi yóbbu seen bopp ci Moussa Njubuli wat sa ko côté bopp yi sa kaw bopp bi nga bàyyi ko mu kawe lool loolu lépp yóbbu sa bopp ci njanaaw rek te yàlla ne wala xadd karam naa ba ni aadama su ko defee loolu tey mooy nekk suñu darsu bi bala maa ñëw ak yow ci nit kii may gunge. ba muy génnee àdduna ñu war koo miiraas alalam moom daal ñi nga xam ne dañuy xeesal mooy ñi jug ngir bëgg soppi bind yàlla bi te nit ku nekk na ko yàlla bindee melal ko ko mu xam mu ñàkk a xam moo gën ci nim bëgg melal boppam ndax yow xereñewoo xamuloo dara yàlla mi xam nag nekk xakim nga xam ne mbir mu ne fam ko teg rek foofaay palaasam ba ñii bind na leen ñi xees seen der ba xeesaay la ñii mu bind leen ñi ñuul seen der ba ñuulaay la attan ñii mu bind leen ñi mel ne ay mitis seen der ba loolu la attan nga am doxadi am ak am ak fit wu rëy ne yow yàlla lii nga melal ma waruma ko woon a mel danaa yóbbu sama bopp def samay pexe ba wan la ni ma waroon a melal loolu rek mooy xeesal su boobaa nag sa doxadi googa yóbbu na la ci geneen doxadi mooy ni nga bëgg a mel te yàlla melalul la ko bi nga defee say pexe ba melal ko sa bopp la muy tekki mooy doxatoo sa bopp mi nga doxoon ndax ñuulatoo waaye doxagoo tamit ki ngay toppandoor di ab tubaab doo doo doxagoo leneen timit yow daal ci digg bi dong nga nekk moo tax xeesalkat yëpp mënu leen tuddee tamit ku ñuul ndax ñuulatul seen lépp ñuulul mënu leen tuddee tamit tubaab bi ndax seen lépp xeesut xanaa ñi tuddee leen ñuule njalaxaan wala ñuule ñuule ñuule pitti pant moo tax ñeen dañu leen tuddee son noir yi am na lay feeñ rek de maanaam moo cay la la lu xees waaye la ca la ñuul la la nëbbu buñ ko feeñaloon rek nga téye sa bët yi kon nag toujours daal ni nga bëgg a mel ni la yàlla melal moo ko gën nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax conséquence yu nekk ma ngi say juddoo sa der bi xatanul xees moo tax yàlla def ko mu ñuul boo ko bëggee xeesal jënd ay produits foo toll di soppi sa xar-xaram bi te sa produit yooya xajoon na ci sa njàngi doom yi bëri na jongama juy xeesal joo xam ne doomam yam yóbbu ca internat ba mbaa mu yóbbu leen ca école ba mbaa kër ga mu nekk di luyaas ma nga ko xameel bor lu tax produit ya muy xeesal kajoon na ca loola te bu ko dagale woon mën naa dem ba am boppam waaye tey xeesalam ba lekk na këram ga lekk na bii yoonu màkkaam ya lekkaale yoonu màkkaay baayam ya lekkaale oto ba mu waroon a dugg lekkaale fayu njàng doomam ya te lépp loo jënd ci produit yi di ko xeesal na nga dencaat lu hëpp loola pour fajoo ko te der bi dana dem ba nëpp soo feebaree ñi war laa opéré médecin yi danañ mujj am jafe-jafe ndax suñ ñëwee rek mu mujj xëtt dal na ñu bari ñuy xeesal ba mujj seen der ya nëpp ñu leen ñëwee ñi xëtt ñëwaat ko ñi xëtt ba ñu mujj dee te loolu lépp ñoo ko yóbboo seen bopp ngay bëgg di rafet nag di rafet a rafet a rafet ba far dugg ci biir bàmmeel ku dugg ci bàmmeel da ngaa mujj ñaaw Seynul Abidina ko rafetoon la di sëtu Seyduna Muhammad sallallahu sa wa sallam benn waaye ne ko sa taar bii daane na ma mu ne ko billaay su ma xamoon ci bàmmeel ñetti fan ñu sulli ma dooma ñemee xoolati ngir ak ñaawaay kon nag di topp sa xeesal bëgg sa taar lu neex sa bopp lu neex sa jëkkër su fekkee amoo jëkkër lu neex say far ba nga far dugg ca biir bàmmeel mu yóbbu la coono ci biir coono mbugal ci kaw mbugal lu ko jar kon yéen xeesalkat yi bàyyi leen xeesal dafa xaraam alquran wax nag ko seytaane bi ko yàlla dàqee këram ga la ne ko yet dàq nga ma de waaye man mii miin sa kër gi xam ruq yéeg ruq ruqaat yi wallahi danaa yàqal ñu bëree bëree bëri ba du ñëw ci sa kër gi yàlla ne ko demal koo mën a yàqal yàqal ko bu ko liggéey yaag moom yëpp safara seytaane bàkku ne la attaxidanna min ibadika nasiban mafruda wala uddilannahum wala umaniyannahum wala amurannahum fala yubattikuna aazana al an'aami wala amurannahum fala yugayrunna xalqalaahi fala yugayrunna xalqalaahi jooja mooy xeesal moo tax mu ne ko man daal sa jaam yile sa jaam bii nga tax nga génnee ma de dégraté ma wallahi danaa ko topp di ko yàqal moom ak njabootam ba danaa am ci moom cër boo xam ne bu rëy rëy lay doon danaa leen sànq nga xam ne sa yoon wi ne wii baa ngi nii ma taxaw ca autoroute ba ne leen fii du autoroute bi autoroute bi mooy fii wa joxoñ leen ay ñàll te dañ ko topp de topp nañ ko di ma leen li mbébét loo ne leen dee dekki amul waxi caaxaan rek la lu ne ma mbébét loolu ko di leen digal lu bon ñiy jël loo xam ne ni yoonu lu ma ko danañ dem ba soppi seen yaram ya di xeesal yàlla ne nag wa man yattaxidi shaytaana waliyan min dunillahi faqad xasira xusraana mubina yaiduhum wa yumannihim wa ma yaiduhum shaytaanu illa gururan ulaika ma'waahum jahannamu wala yajiduuna anhaa mahisa kooku ma ngi ci suratul nisaa yi ayaab téeméer ak ñaar fukk ak benn jëm ba téeméer ak fukk maanaam téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ba téeméer ak ñaar fukk ak benn ayaat yooyu ma jàng yooyu foofu la toll ci suratul nisaa su ko defee kon nag képp koo xamee na nii soppi nga sa sa sa jëmm ji ci xeesal xeyal nga seytaane ci yàlla tekki na ne tamit bokkoo ca jaami yàlla yàlla waxoon na inna ibadi lay laka alayhim sultaan kon xeesal xaram na bàyyi leen ko li ngeen dégg naan jigéen lu mu def mu neex jëkkëram rek loola neex na yàlla waxi caaxaan dong la amul benn hadis bu ko bu ko bu ko wax amul fenn fu ko alquran waxee li neex sa jëkkër bu neexut yàlla kay loola baaxut sa jëkkër a sàggan rek kon nag kenn du topp sa jëkkër am na jëkkër yoo xam ne ñoo sàggan a sàggan ba ñoo jënd produit xeesal ya di ko naan diwal fii nii la gën a maase nangam ak nangam yooyu yëpp bon rek soo lëggee yaag sa jabar ji doon xeesal nga nga koy seetaan moo xam moo ko jënd moo xam yaa ko jënd su boobaa yéenay bokk mbugal ma lislaam dafa ne sa jabar bu xeesal tere ko su bañee nga fase ko faseem yar waaye nga fase ko nangoo koo fase ànd ak moom ca lu bon loola ngeen nekk ca ah boo lëggee tamit yéenay bokk mbugal ma wala taawanu alal ismi wal udwaan la alquran waxoon beneen bi ci tegu tamit jigéen ña passé nañ xeesal ña nga ca léegi wat seen yéen ya te loola lu xaraam la lu bona bon la ni nga bëgg sa yéen yi mel ni ko yàlla melal moo ko gën soo fi nekkee di wat sa yéen yi ba lépp demandoor kan seedu kenn du xamante looy nirooti yonentu bi nee yàlla rëbb na kuy def loola moo tax mu ne waqat laana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man taxayyara xalqallaahi bin namasi aw bil wasmi kon yàlla rëbb na képp kuy soppi bindam ba ci xeesal kuy soppi bindam ba ci wat ay xóomam ay yéenam kuy soppi bindam ba tamit ne yaa ngay njamu njam say tuñ yi mu wër fu nekk njam daal fa muy dagane sa bëñ yi moo am problème nga ne nañ ko njam pour mu gën a dëgër wala nga ragal mu am problème nga ne nañ ko njam pour mu dëgër loola moom dara nekkut ci waaye njam rek ngir ak yokku taar fu ñu waxee nga siiñ wane sa njam mi wala nga wane sa njam yi nekk ci sa tuñ yi te dara warlu ko ca loola kooka xaraam na kon njam daal bu duggee ci buntab faju dara nekku ci bu dul bant buntab faju nag xaraam na noonu tamit la yàlla xaraamalee jokk sa karaw gi lee jokk sa karaw gi ci mees ko moo xam li nga ko jokkee karaw la karaw ak nit nga jël jokkee ko ko araam na wala nga jokkee ko beneen matière bu dul karaw mel ni mees yi xam ne matière u synthétique la moo kam matière bi nga ko euh, jokkee dafa laab comme mees yi wala dafa nekk lu laabut yooyu yëpp xaraam na di ko tegtale benn jigéen ah hadis bi muslim solo na ko mu bokk ci hadisu asmaaw binti abi bakar ya mu ne génn jigéen moo ñëw ci yonent bi ne ko sama ji sama sama doom de dañ koo takk soxna mu nekk ab séet bopp bi nag dafa am ay digg-digg yu soxut ma bëggoon daal euh, man koo jokk meesal ko balaa dem nag ci jëkkëram ja dama ko waxee bay daane rek yonentu bi ne ko laana allahu alwasila wal mustawsila yàlla rëbb na kii jokk yàlla rëbb na ki koy jéem a jokk xadis bi dafa ñëw ci siixatul am luñ mën a jokkee rek yaa xam jokkoo rek la yontu ak luñ ko jokkee boo fa nekkee nag di jéem a détaillé naan a ah, jokku kawar ak karaw lañ wax ku la ko wax ku la ko wax boo waxee ñu naan meeskat synthétique la matière bi nangam ak nangam ku la ko wax déedéet hadis boobu boo ko bëggee xam ne li koy bëgg wax teguwul feet dellul tabaarakallaahu ci hadis yi buxaari yu yi wala nga dellu ci hadis yi tabaarakallaahu muslim yi boo demee ñoom dañuy wax ne boo jëlee xadiisu jaabir bile dafay teg ci ne lépp luñ mën a jokkee rek ak karaw moo xam karaw la moo xam du karaw rek xaraam na beneen xadiis moo ko indi jaabir a ko wax mu ne sajjara nabi sallallahu alayhi wasallam an tasilal mar'atu bi ra'siha shay'an kooku jeex na axrajahu muslim mu ne daal yonent bi jàggi na jigéen muy jokk ca kaw boppam baag dara lu ko mën a jokke moo xam sagar la ca jokk karaw la ca jokk ak seen titig la ca jokk ak yeneen ak yeneen la ca jokk ak yëpp xaraam na loolu daal mooy xana yu ne loolu lañ gëm maalik tamit loolu la gëm li gën a bëri ci borom xam-xam yu sàmm yi tamit loolu lañ gëm kon jëmmi jokk lañu yàlla xaraamal ndax yaa ngi nii boo jokkee sa karaw dana la jox taar boo xamutoon dana la melal noo melutoon noonu melal te meloo nag bu la ci nit ki gisee bëgg la ci ngir taar ba mu takk la bis jot rek nga didi li nekkutoon ci li nga jokkoon ndeke booba ay jànge ci nekk ay er, eraan or nga or nga waaj ah su fekkee danga nga amoon jëkkër tamit nag nga dem jokk mu mu melal la noo melutoon sa taar ba gën a am ci moom cofeel gu wuuteeg gi mu amoon ci yow nga dem ba dindi ko tamit cofeel ga wàññeeku ndax sa taar ba wàññeeku na mën naa ni say say bu say bu tas moo tax daal jokk ci ki am jëkkër ki xamul jëkkër yëpp xaraam na waxuma la loolu lépp nag da ca gën a garaaw dafa lay teree nga masal farata yàlla ji ñuy wax sangu janaba ak li ñuy tuddee jàpp bu ca dara newutoon ñàkk gim lay mën a ñàkk nga mën a jàpp sa jàpp la mat sa sa sangum janaba mat rek war naa tax ñu bàyyi meer ndax yenn mees yi boo ko xasee meesu teg ko mu mel ni sayu ñax woo teg ci sa kaw yenn yi nga ràbb ko ma nga ma nga ma nga ma nga seere ba nga xam ne ma ngay métti ngay tàpp sa bopp bi kooka moom booy sangu pare woo sax mu tooy da ngay wuti fulaar jéem ko caa muur waaw yow boo sangee janaba sa bopp bi tooyut lu toll ni bën bën a pusa bu tooyut sa yaram sa biti yaram sa sangu janaba ba yàqu na soo julli amoo julli sobe nga waroo téye kaamil alquran waroo dugg jàkk masaa bopp farata soo xasee meesu dootoo mën a masaati sa bopp bi nga julli ak njàpp lu manqué soo jullee amoo julli sa jàpp la yàqu na su ko defee kon yooyu yëpp nga nekk ci ba dee di dàkkab taar boo xam ne ni kenn xamul lan la takki ndeer la mbooleem xàndandoor yi mu ci gën a gore di moom taar ndax moom xàndandoor bu nangu wut yàgg la nangu wut yàgg de boo yàggee rek mu tàggu la moom war la gannaaw ana taar boo demee ba béjjaaw ana taar bu sa bëñ yi demee ana taar boo demee ba gisatoo ana taar bu sa lex yi luuxoo te loolu lépp yàgg moo koy waral comme àndandoor boo xam ne moom boo yàggeek moom boo ko bàyyiwul mu bàyyi la te nga koo jéem a bàyyi mel ni la yàlla melal waaye di sa jéem a melal noo xam ne yàlla melalul la ko ñoo yëpp dafa xaraam nañ ko bàyyi jël yéen yi nga xam ne ña ngi koy wat kenn xamul lu ñuy niru passé nañ loola sax ña ngi ca ay xef léegi-léeg nga gis kuy monte xef mu mujj surax mu jaaree ca ñàkk bët li ci ñàkk bët ci ay jigéen kenn xamul nañ toll ci nu monte xeef xeef yi la yàlla melal dafa laa doyut la cay yokk ay xef muy mu sëq sëq ba mel ni ca kenn xamut yenn yi xeef dana sëq ba mel ni xeefi xeefi looy ci moom a ñu tudd looy xam ne bokk na ki ñu gën a sëq am xef montekati xef yëpp daanaka seen bët ya ak bëti looy sorewuñu kon yooyu yëpp nañ ko bàyyi dafa xaraam moo tax kuy monte xef moom ah, boo teelee xeewu dajeeg moom da ngay foo ne aw rab sax nga dajee ah nit koo xam ne ma nga jël monte xefam ya jël boppam ba teg ci yu kenn xamut peinture xar-xaram ba fu ne jël wexam yére emaay ko kooku kay boo teelee yeewu ne rab laa daje sax kenn du la weddi moo tax jigéen ñu bari léegi bari faru rab ndax rab yu góor yaa foo ne ñii ay rab lu yu jigéen lañ ñu far def leen ay far waaye ba jigéen ñi mel nañ mel te mooy na leen yàlla bàyyee ñi mel ko bañ a jokku seen karaw yi bañ a bañ wat seen xéen yi di muur seen bopp bi ba seen xarxaram yooyu feeñ ak seen cet ténk ya booba benn rab wu ñeme jigéen xamutoon léegi nag tabaarakallaahu jigéen ñee niru rab moo tax far euh, rab yu góor yëpp dem defi leen far yooyu kon nañ ci bàyyi xel moo tax téeméeri jigéen yoo gis ki ji jamono juróom-ñaar fukk ya mbaa juróom-ñett fukk ya am nañ faru rab ñii la leen ko yóbboo wat seen i yéen ñii ñi leen ko yóbboo mooy njamu ñii ñi leen ko yóbboo mooy meesu ñii ñi leen ko yóbboo mooy emaay emaay tamit lu bon la ndax boo xasee emaay sa sa sa wee soo jàppee ndox ma du yegg ca weeye da koy protéger boo sangoo janaba da koy protéger du yegg soo sangoo janaba xamoo amoo amoo sangu soo jullee amoo julli soo jàppee amoo njàpp nga nekk sobe suy dox rek di dem fekk ba sa ema bi dañee kon yooyu yëpp nañ ko bàyyi soo demee ba mënoo ñàkk a emaayul emaayul jamono ji ngay gis reegal nga xam ne julli wàcce gum na la soo demee ba set xoosal sa émaay bile ba mu set wecci nga dem sangu gi sangum janaba ndax kat sa janaba ji mat su ko defee soo jàppee nga mën a am jàppu loolu nañ ko bàyyi nañ bàyyi taflijul asnaan jël say bëñ yóbbu ko ci dentiste bi mu koy xett par nànk di ko xett di la xettal bëñ yi xamoon sa karaw maam yàlla bu fexe ba defal la ko wala nga ne sama bëñ yi nangam ak nangam waaye waaye ni nga bëgg sa bëñ yi le mel ni ko yàlla mela la ko gën de billaahi gis boo demee ba ñàkk bañ poosé bañ sa ngay xam ne bañ yàlla rek ko man ah bañ yàlla rek ko man de ba ñuy la yàlla saxalaaleel boo booy lekk yàpp lu mu dëgër dëgër man na ko waaye nag bañ yi nga xam ne yaa ko bëgg a pooseel sa bopp wala nga bëgg caa def man man bu sa yàlla defutoon ah soo bëggee lekk wekki ko teg fële su paree raxas ba mu pare nga dugalaat coono bu rëy nga ca moo tax suñ benn borom xam-xam daañu daan ñu jàngal dafa ma daan wax ne daal neexut ba neexut waaye sa daal bañ daal yàlla rek ko man mu mu ne ma ah sëñ daara Aliou Sakho la woon hakim la mu ne ma jamono métti ma ne ko lu tax mu ne ah jamono daal mooy jamono mooy loo xam ne jamono ji ngay mën a lekk xamoo loo lekk jamono ji ngay mën a lekk xamatoo loo lekk mënatoo lekkati ñi mën a lekk ñëpp boo leen tegalee ganaar ñi jeexal ko xamuñ njëgu ganaar bët bu set waaye ñi xam njëgu ganaar bët bu set ba yàpp sàppi leen ñëpp mënuñoo jeexal ganaar kon yàlla mayul kenn cent pour cent jamono ji ngay mën a lekk xamoo loo lekk jamono ji ngay xam loo lekk mënatoo lekkati loolu rek mooy àdduna yaa ngi nii compte banque yi dun na am nga sa état yi am nga sa oto yu baax am nga ñoo xam ne ña lay toggal ci soxna ba ci ay goro waaye mos rek mënatoo caa lekkati dara jamono ja ngay nekk sa digg waxambaane nag nga xam ne foo taxaw man ngaa taxaw ci débiteur bi ne lakkal ma dix mille francs yàpp lekk lépp fu mel nag boo ñu la lakkaloon mille francs mën too koo lekkati yow nag nga xëy lakkalu dix mille francs xendoo lakkal nit ñi rek lakkalukat yëpp foo leen fekk dañuy xendoo lakkale moom daal xëy suba teel lakkalu xendoo lakkale rek koo dajee koo toog lakkale ko di wax rek waxale mu jëm fenn fu kenn xamut kon yëpp dañ koy bàyyi xel yàlla dafa fonk nit sa karaw gii tamit ngay jaamu yàlla ba mu xëy ñuul mu ñuuloon kuk ngay jaamu yàlla ba mu xëy weex muy béjaawab leer waaye waaye bàyyi ko na ko Ibrahima bàyyee woon mooy ki njëkk a gis jaaw am ko gisee ne yow yàlla lii nag lan la mu ne ko lii de leer la ak wegu la mu ne ko kon nag sidni waqaaran moo tax mag boo gis mu nekk ndaw di jaamu yàlla ba xëy jaaw béjaaw boobu wegeel la ko yàllay defal dafay rafet béjaaw ba ànd ak leer ku ko gis tabaarakallaahu jox ko ñaari loxo ku ko gis summil ko dàll bu dajale yow ci car rapide mbaa tata yi nga jug na ko paa bi toogal file waaye ku nekk ndaw di mooy yàlla di ko topp sa bakkan ba kay béjaaw sa béjaaw ba day ñaaw ña gaaral mel ni saxu sayu ñax kenn du la wekk sa doom yi duñ la wekk sa goro yi duñ la wekk sa mbokk yi duñu la wekk su ko defee béjaaw booba nag bu mu ci mën di doon di ko jéem a cuuba ka ñuulal coono rek lay def ndax boo ko ñuulal li dina ñëwaat su fekkoon nag mais boo ko ñuulalee mu ñëwaat kon jëru ko lislaam nee na boo demee ba koy ñuulal mën ta ñàkk ba bàyyil ñuulal gi da nga ut lu ñuy tuddee katam wala nga jëlu ñuy tuddee xanaa u dafa mel ni fuddan xaw a mel ni lu soon suñ mbokki Nigéria yi am nañ ko kooku mën nga koo cuubee sa sikkiñ bi mën nga koo cuubee sa karaw gi waaye nag jël ñuulal di ko ca def moom sit nañ ko su fekkee da nga koo def sax ngir tromper xale yi wane ne man kat maa ngi ni sama karaw wu ñuul kook nga dem songi jabar fekk ndeke am màggetam juróom-ñaar fukki at nga soxna sa ñëw gis laa ne coof bi yow kat sa benn béjjaaw amagul ñu teg ñeenti fan juróomi fan nga nga nga nga raxas ko mu mujj weex tàll xor nga xor nga doomi jàmbur yi loola moom boobaa dafay mujj xaraam moo tax daal soo demee ba mënoo ñàkk a fuddan mënoo ñàkk a ñuulal soppi sa karaw gile na nga ko soppi def ko muy ci euh, gàncax gu ñu tuddee katam wala xanaa muy lu mel ni lu son loola waaye bul ko defee ñuulal jile loolu na di ko tegtal abi quhaafa bàyyi aboubacar siddiq ku yéex a tuub la keroog fatxu màkk la door a tuub ba mu tuubee boobu baa nga ñaaw ba mel ni fayu ñax ndey saanam yonentu ba mu ne ma nga ñëw likk sikkiñam baag yépp ma nga mel ni maanaam saqaamatu saqaamatu gàncax la gu weex gu weexi tontóor yonent bi wax saxaaba yi ni leen xayiru haza bi cheyin bo sawada waaye waaye soppi leen boppam bi le ak ñam bi le ñeen soppi ko boppam bi ñaawoon de ak sikkiñam bi waaye bu koy soppi tamit na ngeen teet nag ñuulal ga loolu hadis la bopp imaam ahmad solo na ko borom ñeenti hadis yëpp andi nañ ko ku dul tirmisi yu rek moo ko andi moo ko andul mboolem euh, kutubu hadis yi euh, nasaa yi ibnu maja demeet euh, buxaari muslim ñoom ñëpp indi nañ ko tirmis bi rek mu indiwul moo tax kon bu ñuul bi ñuulal ci ñuulal yi de Malik ak imam Ahmad ibnu Hanbal mu ne siib nañ ko Shafii yu moom dafa ne su fekkee da ñuulal jublu ci ragal loo noon yi yow kan màgget nga ne ñuulal sa bopp bii wan moo ni ne kat ci leen i song xale bu ndaw la loolu dara nekku ci loolu ndax xamatul daanaka kon mu ne kon nag su boobaa kon nañ ko bàyyi doonte nekk na lu ñiin bëri lool yooyu yëpp lislaam mi ngi koy tere boo ci jubloo nag di xor di tromper nit ñi dootuñ ko sibati mais dafay mujj di xaraam ndax ñuulal kat di ñoo ko daan def te yonent dafa daan wax ne na ngeen na ngeen xuuteeg yahood yi defin buñ defee façon bii rek yéen ngeen def bële su ko defee nag kon euh, kii yaa ngoog nañ ko bàyyi xel di ko daw ma ñëw nag ci yow wat sa karaw gile karaw terangal yàlla la jum jox njib ci muy gan gu la gane si boo ko mënee teral teral ko soo ko mënta teral nga wat ko teral ga mooy di ko raxas ba mu set wecc nga di ko peñe di ko diw ba mu leer waaye bàyyi sa bopp bi bu ñëggaaral doo peñe doo ko raxas doo ko diw mu xam ay dëñ am ay teeñ ngir ak sàggan sharia dafa lay sant ne la demal nga wat sa bopp bile bu boo koy wat nag watal lépp mu maase wala nga watal lépp mu jeex wala nga wat ko mu maase waaye wat lii bàyyi aw jubbu donte benn jubbu nga bàyyi mu mel ni a a a maanaam a a ak gàncax gu ñu déeg ca baykat yi ñoo xam loola bàyyi aw jubbu ca digg ba kooku yonent bi tere na ko su ko defee moo tax nag eh, loola tere nañ ko wat sa lenn bopp bi bàyyi lenn la tere nañ ko de Naafi' moo génnee hadis bi mu ne naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil qafa'i ñu laaj Naafi' ne ko waaw lan mooy qafa'u mu ne mooy wat sa lenn ci bopp bi bàyyi dara moom daal loo wat bàyyi ca dara rek loolu qafa'u la kon wat sa karaw gi yëpp mu nekk boppam nel nga bàyyi aw jubbu woo déeg ca ca ca ca euh, pegg ba mu nekk ci sa kanam ga ca wetu jëba kooka tere nañ ko wala nga déeg ay ñetti jubbu bii nekk ca koñu bopp ba bii nekk ca beneen koñ ba bii nekk ca ndonga loolu lépp tere nañ ko wala sax nga delloo sa bopp ci Moussa Njubuli mi war sa ko tey bopp ba bàyyi kaw ga mu nekk ca kaw a kaw loolu moom yàlla dafa laa bind rek ne la yow nit nga ci wala xadd karam naa ba ni aadama nga ne man dama bëgg a nekk Moussa Njubuli di ci moom nga xam ne alquran ko tudd muy sootu hut hut yooyu yëpp dañ koy tere Ah, moo tax ci jamonoy Aboubacar am na ñu ko defoon ndax loolu day yàq société bi rawat nañ ñi nga xam ne buñ defee dara donte baaxuñ ñu roy leen ca dañ ko war a bàyyi ndax ni ñi danañu roy ba roy ku wut danañ sopp ba sopp ku soppuwut su boobaa nag yow mi nga xam ne li nga nekk sax soppuwut ñi nga xam ne xamuñ lan mooy cofeel ñu topp la ca lu mel noona war ngaa seet ni ngay waree ni ngay solo war ngaa seet ni ngay doxoo war ngaa seet ni ngay watoo li ko mooy dangay yàq société bi bi ko Aboubacar defee ci jamonoy xilaafaam gi am ñu wattu loola dafa ne dafa leen di dóor xoolu seen bàyyi dafa leen di dóor ñooñu seen bàyyi tuubal leen mu ne nañ leen wat ay nel seen bopp nga set wecci su ko defee nag ñu ñu door leen a bàyyi kon nag yaakaar naa ne bu jamono ji bu doon jamonoy Omar mbaa muy jamonoy Aboubacar Siddiq mbaa muy jamono yonantu bi di xatte xatte yu mel noona danañ dóor ñu bëree bëree bëree bëree bëree bëri bëri ndax sàggante gi bëri na jéggi na dayo mooy yàlla gi bëri na su ko defee tamit kenn ku ci nekk di doxee sa bakkan ci li la neex yooyu yëpp dafa jar bàyyi xel te dafa yàq société bi nañ ko daw tabaarakallaahu tamit nañ ko moytu ndax loolu lépp dara baaxu ci da suñu borom subhanahu wa taala ah, bañ na ko tere na ko timit xam naa nag incha allahu bu subaa ci waxtu wi nit ki ma la doon toppal nag daanaka topp naa ko ci fa juddoo duggoon nag yow ci wàllu tawxiid wax naa ceeg yow nu ñuy wéetalee yàlla waxoon na ceeg yow tamit ci ponki lislaam yi ca julli ca joxe asaka ca xoor ca aj màkka ñëwoon naa yow sax ba ci takk sëy ak ña war a takk soxna na ña war a takkee ñëwoon naa yow ba ci fase ñëwoon naa yow ba ci heddawu ñëwoon naa yow tamit ba ci jëteen yi ñi nga xam ne ku ko def def lu defoo dañ laa war a teg ak jëteen yooyu yëpp ñëwoon naa ci ak yow ñëwoon naa yow tamit nag ci ahkaamu mutafariqa yi ci diggante xeesal ak jokku kawar ñëwoon naa yow ci sàcc ak nañ war a daggee loxo ba ñëwoon naa yow ak ci yooyu yëpp nag topp naa nit ki tey nag ba nit kooku nag ndeysaanam wàcce na liggéey ndax takk nga soxna am nga ay doom samp nga kër ña nga sampoon kër gi nga sampoon mën nañoo samp kër ku sañoon foofu ngay door a deeyee ndax li nga bàyyi lépp ña nga bàyyi man koo xattan xenu ko su ko defee nag kooka nag dee na su dee alal jim bàyyi ana lan moo ca war waxoon naa la soxna yi mu bàyyeeg nañ ko war a ténjee tey nag boo ma toppee suba ci waxtu yi ma dugg ak yow ci nit ku ne bu dee bàyyi na fi alal nuñ koy war a miraasee buñ koy miraas ñan ñoo ko war a donn ak lan moo tax yàlla indi miraas séddale ko ko boo ma toppee suba ci waxtu yi lay doon incha allahu